dinañoo euh, gis ne euh, dañuy wax ne Aliou Cissé sax wax na ko la dernière fois ne conserver li nga xamante gars yi dañ naan ut Coupe d'Afrique am nañ ko mais conserver ko moo gën a moo nar a gën a metti li nga xam ne mooy d'Afrique euh, bi donc mu war a ne li nga xam mooy suñu premier match contre la Gambie dañu war a nekk benn maanaam moo dañ ko war a réussir pour mën a gën a dugg bu baax li nga xamante moo ci compétition bi effectivement moom laa doon bi dañ ci war a dañ ko war a commencer ak ay certitude hmm. c'est-à-dire la compétition dès les premiers matchs nga nga ciy dem ak ay doute Euh, déjà blocage lay doon sur le plan psychologique et ça peut déteindre sur les performances euh, soo xoolee et c'est devenu du ma ne xaw ma règle la xaw ma mais wala poisse la en tout cas ñiy gagné kan bi yëpp compétition yi ci topp dañu am difficulté. du nekk benn poids boo xamante ne wala benn pression. mu nekk ci biir parce que tu es attendu. Hmm. tu es attendu en 2017 bi Cameroun gagné kan bi bi mu ñëwee huitième de finale la topp. effectivement Côte d'Ivoire euh, kii moo ko Nigéria éliminé ko. année bi ci topp. Algérie Algérie génnu sax phase de poule. Mhm. mais je pense que cette équipe sénégalaise là vraiment s'il joue vraiment avec ses ses ses, ses vraies ñu bañ a nekk fii di calculer. et puis bon je sais que peut-être on a la chance d'avoir benn groupe boo xamante ni nii y a des joueurs mhm. ñoo xamante ni nii au moins ñi def nañ cinq CAN ñi def nañ quatre ñi def nañ trois peut-être am na ay boy ci greffe mais ce qui est sûr ossature groupe bi ah. Euh, joué nañ euh, en 2017. je sais pas si war a y' a Sadio Mané y' a y' a Gana Gueye y' a Cheikh Kouyaté y' a y' a y' a Kalidou Koulibaly y' te tey jii peut-être mun naa ne soo génnee peut-être euh, Gana te Gana sax on sait jamais mun na nekk titulaire peut-être soo génnee Kouyaté ah soo génnee au moins tu as yooyu mu leer na ne wala trois yooyu mun nañ jouer donc on a cette. Euh, euh, je sais pas continuité boobu am nañ joueurs yoo xam c'est des joueurs d'expérience yoo xamantane war nañ mën a gérer pression match tey ji match contre Gambie yooyu lañ soxla ñoo xamante ne nii duñ àmbalewul wu duñ topp adversaire bi par rapport ni muy gere parce que ce qui est sûr voilà ce qui est sûr at Gambie su ñëw. il va y aller avec détermination fou il y aura beaucoup de défis physiques il y aura beaucoup d'engagement nag c'est à nous de jouer sur nos valeurs xam ne ñun. duñ équipe bu ndaw. Mhm. Sénégal est cité nous sommes dans le top 20 sur le classement. mondial mondial mhm. donc on doit avoir beaucoup plus de maturité pour aborder yenn match contre la Gambie et je pense que c' est un match qu'il faudra gagner mhm. match la boo xamante ni soo ko perdre y' a de fortes chances nga ñibbisi. y' de fortes chances nga ñibbisi parce que après. Euh, sa deuxième match je pense Cameroun ngay am dernier match bi nga am beneen derby boo xamante ne nii ce sera contre je pense que c'est un match boo xamante ne nii mun naa ne moo nekk bu gën a important ci euh, ci compétition bi euh, heureusement que nekkul Cameroun man je préfère jouer contre la Gambie que que ah, parce que tey ji su nekkoon Cameroun certes les gens vont dire que Cameroun il a am na difficulté pour qualifier pour CAN beeg yooyu ils avaient des difficultés mais sur le plan du groupe groupe bi le Cameroun ñoo gën a ñoo gën a baax groupe y des individualités yoo xamante ni ni ils peuvent à tout moment créer la surprise créer la sensation wala faire la différence donc moi je vois que vraiment euh, c'est vrai que un match n'est jamais gagné d'avance comme humilité bi gars yi di wax dañ ko war a yóbbaale mais naa nag bu ñu ragal il va falloir qu'on sur nos atouts sur nos vraies valeurs ñi war a fubal fubal. ñi warta fubal toog xaar. ñi warta fubal toog xaar. alaaj gërëm waat la nga jàpp ne comme ni